yow moom yaa gën a naqaree gis ci àdduna gis président de la république boo gën a yomb gis la lan la. loolu ruube la. lan la loolu maa ngi nii. garga da raar lu mu demee rek ji li naka war. maa yaa baax. tey sa doomu nday di di di ngénte ñu gis la fi du ma laaj loo fi wut mais seen diggante yéen ñaar dafa mel ni lu yàggoon la waaye suñu borom mu jéem koo dëggal ba ku ci nekk jege. père Thierno Ndiaye de sa doomu nday ngénte bari na ma loo fi wut. <laughs> bu ma boolee nag damay ñëw. waaw sant yàlla bu baax. sant yàlla bu baax kontaan aussi ci suñu teewaay ñun. parce que kii suñu raq la suñu waay la. Euh, comme ni la ko waxee rek dëkkandoo mooy mbokk. te làmb boolewuñu presque. parce que bi ñuy yaroondoo ci koñ bi yàgg na. presque amul amul dix ans presque. n'est-ce kon bu yàlla dogalee tey ñu dem ba bokkaat écurie bokkaat koñ xam nga yaayam di suñu yaay yi ñu yeew di dëggante ay tànk vraiment loolu tamit sant yàlla la bu xewlee dara mënuñu lu dul bàyyi suñu te ñëw teewal ko loolu rek lañ si mën. Hmm. man dama seetlu yéen ñaar seen cofeel dafa mel ni moom lu yàgg la ci moom parce que bis bi ngay bëreeg tonnerre moom bëri na ci mais am na ci làmb yoo waaw am na ci làmb yoo xamante ne eh, am na ci làmb yoo xamante ne day jooy ma toppaat daw découverte ba ñëw fekk man de ma ne ko góorgóorlu laa dëgg la ma pare si bortel la rose bi ma sànni ay ay pot kii moo ma topp de. lu rafet la parce que gis naa moom bi muy bëreeg booy booy gendar euh, bokkoon nga ci ñu bëre ci journée boobu. dëgg la gis naa ni euh, am na fu mu teg te yàlla suñu borom dogal na ko ba ngeen bokkaat fi yàlla mooy def loolu yàlla mooy boole ay nit. dañ ñaan yàlla yàlla na yàlla mos seytaane loolu rek la ñuy ñaan yàlla li des yëpp presque ay ay détails la. ànd nag dafa métti te man damaa naqare àndal ndax neexuma deret waaw mais nag nit moom boo xamee li nga bëgg xam fi nga jëm yenn yu bëri da nga ko yëge teg ne dëgg man sa objectif man loolu laa gëm sama nit jaral na ma lu ne man ñi ma xam nañ loolu man du jël demi mesure su ma nit damay dem ba ñëpp xam nañ ne kii sama nit la loolu la ma yàlla na tool noonu laa mel waaw nañ ñàll yàlla musal seytaane saxal ànd bi moog yeneen yi ci topp yëpp parce que du moom kese ñi fi nekk ñëpp vraiment dañ ma jox cër bëgg ma te loolu it yombul waaw.